sëriñ bi doon sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي القائل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل قوموا لوحيته وأغفروا لرعيته فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وعلى آله وصحبه وأمته وخديم أحمد الذي قال yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila aali wa salaamu taslima mbokk yi ginnaaw ba ñu musloo saytaane tàmbale suñuy wax ak suñuy jëf bismillahi rahmaani rahim noo ngi sant yàlla mi nga xam ni moo wax ci téeram bu tedd ba ni eh, nga xam ni gëm ngeen mm, farataal naa ci yéen koor comme ni ma ko farataale woon nga xam ne ñu ndax lan ngeen rek ngeen am ak ragal yàlla di julli ci bi di selmal ci moom moom mi nga xam ne moo wax ni na ngeen woor ci gis weer ni ngeen wori ci gis weer bu fekkee waxtu bi ngeen koy séntu asamaan dafa lëndëm ma mënu leen koy gis ngeen matale weeru Sha'baan fanweeri fan sant sunu yaakaar Cheikh Ahmad Bamba mi nga xam ne mooy jëwriñu yonent bi sallallahu alayhi ci lii nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaane muy weeru koor ni mu ko daa waajale nga xam ne am na njëlbeen xasida boo xam ne andi naa ko ci mu yaa xayra dayfin ataa bil busri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi wane fonk gum fonkal weeru koor ak fa ko tegan nga xam ne moom weeru gan la ko defoon boo xam ne mooy ngeen di gan di ko tagg ci waxtu wu nekk di ci joxe ay nawaafilam ci joxe alal di ci soññee ba nga xam ne weeru bii dem daf koy sarse ba mu fees dell tagg na ko yu bari xasida googu nga xam ne moom lañ ubbee waan léegi lépp moom la cay tàgg mu yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adad laa sulta dayfan kariman fairan abadan mukarraman bi xirat taaxaati wa sadad muazzaman inda rabbin la sharika lahu wa inda ahli tuqa wal xilmi wal rasadi noonu la bokk xasida ga ba man ko tey wax naa yaa shahra rabbil karimin fii ka jaadalana bi laylatil qadri taatil fadli wal raxadi تتخذ اليمنى لسد أخذ كتاب الله فيك هنا إلى ارتهالي يوم السبت والأحد وصد عبدك حب السات يا أملي وكن عبيدي يوم الهول والكمل إني أحبك يا سهرتي يا نبلا حسن فأهلا وترحيبا بلا عدد di ko tagg ci ginnaaw xasida yaa sol busaaraati bil ayaati wa suwar li sabbi kawniya abdal muhsini suwari بسبب كوني يا عبد الله فيك بلا قس ولسبب أني كنت من عوالي سير فقول لرب لا شريك له في الملك والحمد رب الجن والبشر والبشر لا صرت ضيفا كريما قد يبشرني في السر والجهر بالإنظار ذا بخاري فجعتني يا خليلي بسرور هنا بلا قدم في ترابي فانتفع قدمي loolu lépp li tax ñu di ko andi bëgg leen a xamal rek fonk goo xam ne sëriñ bi fonkal na ko weeru koor ba bu daa dikk daf koy waajal buy dem itam da ko daa gunge loolu moo tax ñu andi lenn ci ay bayitam barkeeloo ko yoo xam ne mi ngi ko doon gàttandoo weer wi di leen ko fàttali di ko fàttali sunu bopp di leen ko fàttali ci ñu góorgóorlu ci ba bu dikkee ñu joxe ko ni nga xam ne mooy gën ngaa rafete anam ci suñu kenn kàttan yàlla nañ suñu borom dimbali ba nañu ko bëggee suñu borom jàppaleen ñu def ko noonee ci bañ a sànk wenn waxtu ci koor bi ci cànk goo xam ne amul benn njariñ góorgóorlu bu baax a baax a baax ci ci ci naafila di jàng alquranul karim di jàng xasiiday sëriñ bi di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa di ko tudd ndax weer la woo xam ne weeru occasion la boo xam ni bu ko jullit bu ko jullit fekkee war naa góorgóorlu def ca lu am solo ndax xamul dina ko fekke déwén wala déet bokk ñi nga xam ne dañ ko fekke ren joxe ko gën ngaa anam gën ngaa rafet joxe fekkewaat ko ay ati ati at ci mu nekk mu tal ko ànd ko biir te man koo joxe ñu ko seen borom diglee boo ko defee loolu lañ doon fàttali ci njëlbeen gi xëy na danañu ñëw rek ci jàngale lan mooy eh, faratay koor ak i sunnaam bu ko defee ndax ñu gànnaayoo ko ba kuy dugg ci koor bi ku nekk rek xam ne lii mooy ci farata lii mooy ci sunna lan mooy faratay koor faratay koor bari boo ko xoolee ñaari farata la moo tax sëriñ bi wax ca téeréem ba ni faridata siyaami niyyatun wafat waq fana an muftiratin falina nee na ñaari faratay koor ya mooy yéene bi xam ne dafa matale muy ba ci njëkk ñaareel ba mooy fekk lépp loo xam ne daf ñuy dog loolu maanaam lépp loo xam ne day waral ak dog wala lu koon ñu ko bu ko defee ñu taxaw ci yéene yéene mooy nit ki li muy def mu fas ko yéenee def lillaahi fas ko yéenee def ngir yàlla rek bu dee lu mel ni koor am nañu wax ni guddi ga nga xam ne mooy guddi ga ci njëkk mooy bu ñu séenee weer yi seen ko man na man nga yéene woor weer yëpp ci génn guddi muy benn yéene boo xam ne mën naa yóbbu weer yi bu la neexee itam guddi genn bu nekk nga yeesalaat ko bu fekkente ne bii ki nga xam ne dafa yéene woon woor weer yépp ci génn guddi gi yàlla dogal mu dem ba ci biir mu am lu ko dab ba am ci fan yu wóoru dañu wax ne bu dellusiwaatee ne yeesalaat yéene ki nga xam ne yàlla dogal na nag maanaam duñ ko yéene suñu borom dimbali ñu ko ba mu joxe weer yëpp te amu ci benn ngàllankoor donte yeesalaat bi beneen yéen yi ca yeneen guddi yi itam teewul matale na waaye bu ma nee guddi gën bu nekk nag ñu yeesalaat yéen yi itam day gën a baax boobu mooy farata bu njëkk bi bu ñu dee seetlu nag bépp jaamu yàlla yéene daf dee nekk farata nga xam ne ne innama al a'maalu nekk la ci yéene ñu rek moom lay am ñaareel bi mooy wattandiku lépp loo xam ne daf ñuy doom loolu nag lu yaatu bokk na ci li yàq koor ka nga xam ne mën naa gàllankoor nit Euh, lu mel ni ki toog di xalaat xalaat yoo xam ni mën naa dem ba am lu génne lu nit ki génn lu génne ci nit ki ñaa boobaa moom kooram day yàqu soo defee wattandikoo barabi lekkukaay yi barabi naanukaay yi jaxasoo ñoo xam ne xëy na du ñu woor ci gàttal daal lépp loo xam ne rek maanaam nit mën na caa yàq ko rek moo tëliku barabu jaxasukaay yi di wéete ci jigéen ak mel noonu yooyu yëpp daal moo lépp loo xam ne rek mën nañu yóbbu ci yàq suñu koor rek ñu wattandiku ko loolu farata loolu dafa yaatu dañ ciy lim yooyu rek waaye sunnaam yi itam ñett la moo tax mu ne sunna nu atat thalathan ya labib sunnanuhu atat thalathan ya labib taajiluna alfutura min ba'di alxurub wasaani taaxiru suxoori layla taalisuha xabtu lisaani xaw man sunnay koor ñett la bëcc njëkk mooy gaaw ci ginnaaw bi sawee ba mooy yéex a ginnaaw bu fajar gi xale ñetteel ba mooy fekk sunoo làmmiñ ba duñ ci wax wax bu ñaaw kon daal loolu mooy sunna yi yee ko jiitu woon mooy farata yi farata ñaar la mooy yéene ak wattandiku lépp loo xam ne daf lay doon lool sunna yi ñett la muy gaawadu ginnaaw bu jant bi sooyee yeex xadd ginnaaw bu fajar gi xaree waaye fekk sunoo làmmiñ lépp loo xam ne mën naa yàq koor ci waxi caaxaan ak yooyu ñu wattu ko boo ko defee ñu xam ne koor itam lu am solo la ci lislaam ndax dafay ponk ci ponk islaam buniya al islaam ala xamsin shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu dañoo wax ni tabax nañ lislaam ci juróomi ponk ba ci njëkk mooy seereen amul benn buur bu ñu war a jaamu jaamu day jariñ wala ñàkk jaamu day la kudu yàlla seereen bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaamu boo ko ñaareel mooy taxawal julli boo ko ñetteel mooy joxe asaka boo ko ñeenteel muy ponk bi ñuy waxtaan muy weer woori koor boo ko juróom koo xam ne mën na ko farataay aj nag wenn yoon rek la boo ko defee ñu dellusiwaat ci koor mi nga xam ne moom la ñuy waxtaane ci di ci topp mbindum sëriñ bi ci la xam ne maanaam koor yéemul rekk ci ñàkk lekk ak ñàkk naan boo settantalee lu ma lay jàngal ci farata yi ak sunna yi junjaale na ko mu ne kafu lisaani xawla maanaam wattandiku saw làmmiñ ci wax kon lépp loo xam ne wax la ju amul njariñ rek jullit bi war na ko wattandiku waxtu wu nekk rawatina nag ci weeru koor moo tax sëriñ bi di wax ci koor ba léegi di wax ni summa siyaamu intabihu lam yanasir fi adamil akli faqat fi ma'tabar isru basaidan mahal jamaa laysa lahu sawal majaaha siwal majaaha وفوم أن يصوم كل عضو عن كل ما يفضي فتى للسهو فلتمسك عن نصرة إلى العرام والمسي واستمهله مع الكلام وكل فكرة ردية كما تركتم أكلا وشربا علما sëriñ bi dafa wax ni na ngeen xam ni koor tënkuut rek ci ñàkk a lekk ak ñàkk naan déedéet ndax bariwaana aji woor joo xam ne ma ngay koor ànd ak nit te kooram googee ab xiif rek la ciy jële waaye amul beneen njariñ bu mu jële ndax koor mooy nga woola sa cër yëpp lépp loo xam na rek da xëcc nit ki di ko jëme ci lu koy juum bu ngeen dee ngeen wooral seeni gis bu leen dox jëm leen ko déglu bu leen ko wax bu leen ko xalaat sax maanaam bépp xalaat boo xam ne xalaat bu suufe la rek na ngeen ko bàyyi mooy xalaat bu ñaaw comme ni ngeen bàyyee lekk ak naan te biñ ko dégg ni koor moom cër yëpp la ñuy woora loolu nag ci fàttalee tuuti loo xam ne danga koy seetlu baree baree bari mu di ma dal di dal sama moroom yu bari weeru koor bu weeru koor dikkee dañuy jàpp ñoom bu ñu lekkatu naanatuñu rek ñu ngi ci koor waxtu yi ñu toll mu ngeen dee seetlu sax bu njëkkoon li ñuy wax lido ci waxtu bii la daa gën a jar xëy na léegi portable yi tax na ba jaayetuñ ko noonu ndax lañ ko daa def ci lido yi ñu ko def ci portable yi nga gis ñoo xam ne dañuy toog benn jotaay daanaka seen bis yépp koy nekk di lido waaw ñu ngay sànq temps bu seer wala nga gis koo xam ne sax dafa nekk ci portable am xëy na benn mu connecté wu nekk ci maanaam euh, YouTube bi wala mu nekk ci TikTok bi wala yu mel noonu di ca déglu wala mu koy xool loo xam ne amul benn njariñ yooyu yëpp ñu wattandiku ko waxtu wu nekk nag rawatina nag waxtu wu koor ba tey sëriñ bi itam mi nga wax ni wala tukassiru suhoora wal qusuur waxta siyaamikum fa tuhrimul ujur is kullu man malaa batnahu tahab wa akthara surba alayhi wal manam fa innahu mahal bahima stawa isbaatuhu xayrun kabiirun wa talab nee na waxtu yi nga xam ne yéen a ngi dog wala ngeen di xam ngeen wattandiku lekk ba seen biir fees dell ndax nit bu fekkee dafa lekk ba rend naan ba màndi nelaw rek moo koy def loolu koy def atte bàyyi rek daanaka moom day andi ndax bàyyi moom lekk ba rek naan ba mandi ak jaxasoo rek daanaka loolu moom du koy bàyyi moo tax nit ki war na di wattandiku waxtu wu nekk ci koor bi mu ciy topp loxoom ndeyjooram da ci jël loo xam ni daf koy tàyyeloo moo tax mu ne wa ba'du hum yaakulu aklal baqari waxta futuurihi wa waxta sahaari حتى يكون بطنه ثقيلا جدا فصار قلبه مثقولا عن ذكر ربه koy mel sax danaa am na ci lekk comme lekkuk nag ci waxtu dañuy dox wala ñuy xat loolu léeg-léeg nga gis dajeeg benn njaayeen boo xam ne buy wàcc waxale lu ne ma nga am ngàbb ca bu ko yooyu yëpp rek bu ko jëfandikoo man bu dul rek maanaam léegi nag tëdd bi dal rek fàtteeku bi yàlla bu ko defee koor boobee moom daanaka du ko làq benn njariñ loolu nag moom la ñuy wax woru woru mooy di sonn ci mbir yaakaar ne yaa cee jariñu fekk boobu amoo ca benn njariñ yàlla nañ suñu borom musal moo tax mu ahasanallahu minal kururi kullu ma yàlla nañ yàlla musal ci waru ak lépp loo xam ne dafay waral ak loolu ci diiru jamono loolu daal moom la bëgg a baaxee nit ñi di fàttali suñu bopp di leen ci fàttali ñu baax ci weeru koor xam ne weer la woo xam ne weeru occasion la. ku ko fekke war nga caa góorgóorlu ba manqué yiw bu baree baree baree bari ndax waxtu wu nekk ñu ñëpp fekke ko du waxtu wi tey fii tam ña ko man koo joxe ñu ci dëkk bu ko defee góorgóorlu ci sàmmante ñun jigéen ñi nga xam ne moom la ñu borom tabaaraka wa taala digle ci góorgóorlu ci bu baax a baax a baax bañ cee sànq yenn waxtu ndax waxtu dafa nekk yoo xam ne lu foor la boo demee téere sëriñ bi ñuy wax Masaalikul Jinaan am na fu mu koy jàngale lu mel noonu boo kon aqil daay lu kala xabaar fii kulli waxtin

jàpp ne war na moos mu jënd ci koom moo xam ne yiw wa lu daytalu àdduna ak àllaaxira kon non muy temps mën nañ ko firee dem dem na te dootu kon noo gu dem gu nekk ren ba fexe buy dem yóbbaale ñu aw yiw buñ demee ba nga xam ne mënuñoo yóbbaale aw yiw itam buum moom la sëriñ bi wax iqlaahu ixlaahu abdin nafasan min taaha yujibu hasratan lahu fi saaha ama ida axlaytaha fi lmaxsiya fa saaka xusraanu yumin fadlu nee na neena lu jàmm ci ak ñëw ci ñàkk topp yàlla dafay waral sartaange ëllëg taxawaay am na bu fekkee dina bi danga koo sànq danga koo neenal ci mooy yàlla kat bokk na ci di góorgóorlu guddi luñ ci man ci naafila yi lu mu gën a gudd rek moo ca gën di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa di jàng ci xasiday sëriñ bi di jéggulu suñu borom lépp luñ ci mën ci dimbale itam ñu di ko def loolu daal moo ngi ko doon waajale koor gi di leen ko dénk di ko dénk bopp di wàcc foofu sunuy kàddu ba dellu si waat ci yeneen jamono wassalaamu aleykum wa